mais <laughs> mais but buti. ah tous tous tous mala suwaya. mais but buti. but but but but but but. ñebe but but. yaa ko def di dundu yaa ko def di dundu yaa ko def dundu yaa def dundu. mais léegi boobu laa andil gars yi. yaa ko def di nga ko dund ah di nga ko dund di di bàyyi woon nga xalifa. waaw bàyyi woon nga tiktok bi bàyyi lépp toog ay at yoo xamante ne defoo dara ñu ne xalifa bi mu jugee jeel ba tey dafa xaw a ragal ñu ji jékki-jékki gis la nga génnaat ak foo jékki-jékki première génn bi moom rey première génn arme bi nga téye. def sa masque mbay. Ah. ma fàttali la. Ah. man bi ma génnee kaso. Mhm. vendredi laa génn kaso. Ah. weeru koor la woon. Ah. man ndogul ak def vidéo ci saa si. waaw est man du ma régal de xaw ma lu ñu de. voilà man soldaaru Mawlana Cheikh Ibrahim Baños laa yaa ngi dégg. waaw man xaw ma sax ragal. ragal yëpp yàlla la. <laughs> mais da nga arrêté woon metti ma la sumu waay. wow kong te pourtant maa ngi woon ci sursis. man dama génn kaso mu dese ma un an onze mois ferme. un an onze mois sursis. sama sursis bu jeexee yàggul. Mhm. sama sursis yi muy jeex. yaakaar naa. avril la xaw ma. waaw man sama sursis mi ngi jeex yaakaar naa. xalifa dégg naa si ñu ngi jomaay jomaay nekk na président quoi bi sama sursis di jeex. yaa dégg. Mhm. voilà te xam boo nekkee ci sursis. da ngay demee xel. surtout boo nekkee borom kër. nekk borom njaboot du dëgg. yasaay loolu kese la demee. xam nga te teewul ñu gaañ suñuy combat pour Sénégal. ak xeex pour am suñu souver souveraineté nationale. ak suñu indépendance. ñu ko doon xeexee waaye ak suñu méthode. koo xam ni gaamal la sumbaay bi dëkk bi di metti ñu jàpp Sonko mhm. mu grève de la faim uh-huh. gars yi teg si bakkan ne dañ koy faagaagal dañ koy rey uh-huh. ñun tamit ñu teg si bakkan saawaay uh-huh. génnee suñu course yu wér di ko ñaanal lépp lu ñu mën bâtiment teg si bakkan si ay dégg léegi tey si tey yow xoola Sonko dafa arrêté grève de la faim rek ak dafal ko sound te uh-huh. Sonko du la mus a fàtte si histoire nationale u Sénégal uh-huh. te mondial politico yaay numéro uno uh-huh. histoire politique mondial yaay numéro un asalaax ni kon ñun saawaay xoola ñun bi affaire yi di metti si nañ gën a jàpp waaye boo nekkee si sursis da ngay demee xel dëgg loolu kasa mais mais mais mais ah. gisoon nañ nga aj garde gi parce que si yi sax dañu ma daan woone xalifa bëggatul génn léegi wér di la jël ah xalifa dootul wax kasa bi da ko changé ak yooyu ah ma teg sa mais mujj gi ma jékki-jékki gis la nga yor bi pour la la arme nga génnee gërëm. non xama xama mbay. Uh-huh. gars yi xamul lu mu demee rek. Uh-huh. ba pare yor masque. man avant sama kaso bii nii. Uh-huh. nga xam ni waykat boobu moo ma jaay doole dugal ma kaso ndax ay affaire de showbiz. ah avant sama kaso boobu. waaw mais kaso 100 mètres. est-ce que yaa ñun am nañ suñu démb. Uh-huh. man jaar naa daara yoo xam ne moo gën a sax metti téeméeri jun yoon cent mètres. est-ce que wax ni. Uh-huh. Uh-huh. xamul nu mu demee ñu ay doom Medina nañ. juddoo Medina. màggee fa yaroo fa dëkk Colobane dëkk Fass dëkk Sacré-Cœur sept trois dëkk naa fa sept ans Sicap. fekk ay jëppalax fu ne. frère Grand Dakar ñaari tali. Sumbaay. frère Gédoo ñun temps ñëpp ñu xamee koñ boo xalaat saa waay xoola presque xoola. am nañ fa jaar jaar est-ce que ma wax nii. kon gars xamul nu mu demee xamul wala ñun xamuñu luy régal du ay ay question de régal mais xama tamit. ay interview chaque jour. nga bëgg a génn di communiquer te yaa ngi suur loolu saraxee sa bopp la. loolu du loolu du xel bu sell. surtout boo yoree njaboot xam bu doon man kaso la coodu jub. man kaso ak liberté laa yemale. mais dama am njaboot. ne sama njaboot tamit dañuy ma yaa ma gën a xam dañu am cër si man. est-ce que yaay dégg. loolu kase la. mais kase ndox la lañ. ñamale mais moo tax sa suuf si jeex rek tooñu la. waxu la dara. kenn tooñ xam naa fi nga jëm. waaw ak yow. waaw xam nga la mbay. mbay ah, ah. man saagaw ma kenn. non nag saag da nga def da nga def non taxawal da nga jor sa fetal ah maskaw

ba ba ba man du ma kanaar rek te gende man aw ma ñëg man kenn du ma jënd man. xool <laughs> fi eh man kenn du ma jënd man aw ma ñëg de <laughs> man du ma booy yi nga xam ni gars man la souvent ngeen dugal si kaso bi ñuy jooy xam nga <laughs> eh? ah. booy di leen téye di leen atte ñàkkal gaan di leen pagate si kaso bi di leen pagate si buntu duusi. di mm-hmm. leen tegal gaan yu wow kongu xam man man booy kaay ma wax la man dur yàlla musuma yab. même ba si bandi malfaiteur defkat yi sax laa lay wax nii ah, ah? ah. aw ma sens interdit fenn maa ngi nii kenn yabu ma ah. macha allah alhamdulilah te kenn du ma musa yab te man aw ma ñëg man kenn du ma jënd man tey say man gor laa deretu gor moo daw sama siritu yaram may déglu ma la ngir yàlla deretu gor mooy daw sama siritu yaram man Mbindeef man doo ma ñëw jël ma toroxal ma àdduna yëpp teg seen bët. ma uh-huh. ñëw boo ma joxoon ay milliards sax na nag may jënd man sama ngor saa waay man antanu ma loolu mënu ma dund loolu. Uh-huh. man dooma ma toroxal dugal ma kaso ba pare. Uh-huh. ah ba pare ñëw. boo ma joxoon ay milliards laa lay wax ni saa waay xoola. du ma la mës a joobal. dem safara sax moom moo gënal. est-ce que ay dégg. ay bañkat nañ. ñun suñuy maam ñoo nekkoon buur fii si town Seydou Dial Diop laa direct. su ma neexoon. Uh-huh. dem nekk grand sëriñ Dakar. Uh-huh. parce que am na ay grand sëriñ Dakar yoo xam ne seen yaay ñoo si bokkoon. da si ay dégg. Uh-huh. sama ko def papa. sama baay avocat sama maam ki jur sama baay juge la. Amadou Tidiane Ba. sama maam bu ki sama yaay premier sage femme d'État, Sénégal. Uh-huh. sama du dafal na lu ne première way kat bi ngay wax ni est-ce que uh-huh. Uh-huh. sama baye dafal nako lu ne. teranga. sama day sama yaay. ma yar dafa daan ñew dafal nako lu ne si teranga. est que waaye la. la. xamoo àdduna nekk ngaaxa nekk benn weeri bu ñuy téye ganaar man la sumuwaay di la ping pong naan laa dafal lii defal lii ay malfaiteur ñëw di la muboo naan ay non booy bi foog ñu tëj ko ay yii booy bi yee eh, eh, yee booy tous bi laa walaa wa talaay ñun ñun booy kaa wax la ñun lu ñuy wax dëgg la te yàlla tax tuumaa lu ñu sosaluñu kenn te dëgg nañuy xeex gis nga tey si tey lu ma la wax nii yëpp samay maam samay maam samay maam. Uh-huh. dama la bëgg xamal ni sénégalais dix mille pour cent. Uh-huh. Dakar Medina. Uh-huh. clinique judo. est-ce que mais ñëw non ma ñëw xam ma wax dama la bëgg xamal ne mbay. Hein? ñun wuñu fi. mais man concevoir mais wax. wax opinion nationale ak internationale. mbay doolal sa maan ngir la yow sénégalais comme yow nga dem ñu yóbbu yoon. Uh-huh. yoon di la topé association malfaiteur. faux usage de faux. escroquerie. Uh-huh. falsification dossier administratif. Uh-huh. nga sàcc passeport passeport jàmbur. otom bi ñu sàcc yow nga jël ko falsifié kayit di jaay ko ñetti nit yu bokul yow lo da nga am lo la association malfaiteur. yow da nga am lo leer eh, da déglu rek baal ay waxu ay am lu la ah, man mal am ah. lu la leer man lepp lu may wax ku sa dama nga porter plainte la est-ce que yaa dégg voilà non bu baal di wax ay am lu la leer man li may wax ku si gis boppam mu metti ko na dem porter plainte est-ce que yaa dégg mhm. baaluwuma kenn saraxuma kenn mhm. est-ce que yaa uh-huh. te tey si tey lépp lu ma war a wax muy dëgg naa ko wax te yàlla tax man askan bi laay waxal uh-huh. juge magistrat yi uh-huh. ak autorité judiciaire laay waxal ak président Diomaye bi nga xam ne moom nañu xeexal teg fi jub jubal jubanti mais est-ce que loolu nag loolu nag may déglu opinion laay waxal maanaam nan nañ mënee comprendre Uh-huh. sénégalais ni man. Uh-huh. dem association malfaiteur. faux uh-huh. usage de faux escroquerie. falsification dossier administratif. bu que quatre dossiers yo xamni ay délits yo ne kasso nga fa deux ans wala trois ans. mais léegi yow tëddoo vous yow des yoon la de. la ah? nga ñew wolbeutiku jaar ci souf même yone bi fayal dommage intérêt 50 millions yow fayo 50 millions yoy nga ñew di porter plainte benen sénégalais si ay détails yu ñàkk fayda ay détails yu showbiz yu ñàkk fayda parce lu ma la ñu jël sénégalais boobu noonu jaay doole dugal ko kaso un an onze mois sursis un mois ferme lan mooy ndeyu loolu booy booy opinion laay waxal opinion lan mooy ndeyu loolu lan mooy ndeyu sénégalais ni man mhm. def ay délit yu gën a doy ay délit malfaiteur yu graaw yu amul fenn mhm. yoon war ko tëj deux ans wala trois ans tëju ko kaso mu jox ko amende dommage intérêt nga war ko fay fayoo ko yaa ngi dégg kooku jaar ci suuf. Mhm. ñëw porté ma plainte man si ay détails showbiz xaw ma ay business yu ñàkk fayda est-ce que dégg. Mhm. ñëw porté ma plainte même yoon bi man tëj ma un an onze mois sursis un mois ferme lan mooy ndeyu loolu man loolu laay laajte. Mhm. man loolu laay de. saaga wu ma kenn xuloo wu ma kenn xeexu ma est ce que dégg. Uh-huh. voilà man loolu laajte. di uh-huh. si réew mi fii laa bokku uh-huh. sama ndeex samay baay samay maam maamaat arrière suñu histoire samay maam maamaat ñëpp fii nañ juddoo. est ce que dégg. te billaahi wallaahi watalaahi dossier bi man du ma bàyyi mu sedd sama dossier la. te suñu dossier ñun askan wi parce que ah. sénégalais yi dëggu. Ah. sénégalais yi ànd ak jub jubal jubbanti bari ci dee moo njaay. sénégalais yi nga xam ne bi muy metti dañoo ànd ak askan wi ànd ak dëgg. sénégalais yooyu noonu dossier bii suñu dossier la parce que dañu bëgg yoon def yoon kumba am ndey kumba amul ndey yaa ngi dégg dóor doom làkk doom jeex Sénégal moo tax ñu fal jub jubal jubbanti suñu ministre de la justice Diagne ma mais respect ñu ngi koy siyaar moom tamit message bi ñu ngi ko koy lancé ñun justice la ñu bëgg si même réew malfaiteur bu la jaayee doole dugal la kaso si lu ñàkk fayda fekk malfaiteur bi même justice ñu ngi koy toppee ay délit yu gën a doy waar justice man ni ma dugalee kaso na ko dugalee noonu kaso xulóowuma kenn xeexuma kenn te le 15 juillet mooy procès bi en appel na ko sénégalais yëpp bàyyi xel le 15 juillet. est-ce que yaa ngi ah. le 15 juillet suñu dossier la suñu procès la. Mm-hmm. billaay walaay wa tala yoon nit dina am si même réew. ay affaire de yini, nii ay affaire de mafia ay lobby yii nii. Mm-hmm. ay xam-xam bu ñuul ay liggéeyaate. tous barki Baay Ñas billaay walaay boy, boy. booy booy <laughs> waaye Sénégal dafa xat ñun ñëpp xamante nañ oto Verratti bi ñu sàccoon oto Verratti Marco Verratti bi nekkoon PSG italien boobu ah. otom bi nga ko sàccee bi nga koy jàpp fii Sénégal gars yi ñoo la gën a xam oto bi fan nañ ko jàppee ak si ñan nañ ko uh-huh. voilà yi Amadou Sall sàcc Macky le plus grand criminel de l'histoire générale du Sénégal marché oto état yi mu jox Amadou Sall uh-huh. Amadou Sall jël xaalisu askanu Sénégal jënd si ay oto luxe ki ko askan bi ñëpp xam nañ ko. yow mbedd bi ñëpp xam nañ ko. waaye booy yow ñëpp xam nañ ko gaan ah, booy booy booy fii gaan booy boo gisee waykat boo xam ne ay drapeau góor jigéen lay sol di ko wan askanu eh, lëmb eh, ah? eh, sol drapeau góor jigéen di ko wan askanu <laughs> lëmb ah? porte plainte imam porte plainte oustaz di jaay doole di xeex islam laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam islam sama diine ah. kenn du ko xeex boo ku ko xeex ma jox la sama bakkan jëlal bu dee dëmm nga demal ba inde daf xam-xam yu ñuul ana maire bi doon dem inde naan xaw ma ay xam-xam yu ñuul ana mu tey deene mi ngi si dëgg ñun saay laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam amuñu lu ñuy ragal retour vers la yu wow kong ngi fi xoola li nga ji ngay góob loo fi indi fekk fi ay seetu nañ est-ce ay dégg mais tey say jaay doole bi noot bi artistes yi booy Sénégal uh-huh. baa leen seen xel ki fi nekk gaamal la sumu booy bu si am bës wala mën a woy mm-hmm. nga jékki saa ñu suul sa bidéw daf la ay bagage ay xam-xam yu ñuul jug leen seen bopp yaa ngi dégg <laughs> voilà te tey say lu ma lay wax booy Sénégal naa fekk bi si réew mi moo war a dagg moo war a jeex mm-hmm. Mm-hmm. Youssou Ndour carrière musicale la def Youssou Ndour bi muy am vingt ans wala trente ans carrière musicale mhm. def na tour du monde fu ne dem na fa te amagul woon milliard booy duñu ay njaaxawaay yoo xam nga luy un milliard booy booy kan moo am un milliard booy exemple laa un milliard am un milliard un milliard trois cent soixante cinq jours ah. mooy année bi ah, ah. année bi yow chaque semaine mhm. del jub di dem di jouer ay France Europe Amérique fu ne ngay dem di def tournée tournée mondial. chaque semaine ñu lay fay 100 millions loolu defu la milliardaire. parce que bi ñu lay fay di nga fay say artistes di nga dépenser di nga fay impôt di nga fay ay hôtel ak yeneen ak yeneen dëgg loolu du dëgg. Mhm. voilà kon xam nga loolu defu la milliardaire. suñuy renseignement généraux ñoo la gën a xam banditisme d'état bi fi amoon fii nguuru Macky Sall. Mhm. complice yëpp xam nañ leen complice waykat yi xam nañ leen. complice ministre yi DG ñëpp homme d'affaires yi ñëpp xam nañ leen. est na gars yi def seen liggéey laa la wax. mais atiwa ñu tudd paas boobu waaw justice def liggéeyam. Ah, man ah, ah. saaga wala ku ma dëkkal fu ma dëkkul yëpp man bàyyi naa ko wax yàlla. mais est-ce que dégg parce que xamul parce que xamul mm-hmm. yàlla xam na lu si xol yi. Mm-hmm. yaa ngi dégg. waaw yàlla yàlla yàlla <laughs> mooy àtte te maanaam. ñun tey say ñun soxoruñu iñaa iñaanuñu waaye man boo ma dugalee kaso wala nga yéene ma kaso mm-hmm. man yéene naa la kaso mm-hmm. voilà est-ce que xam mm-hmm. man boo ma soxoree ma mu leer ma yow soxoree nga ma iñaanee nga ma man ma soxoree la iñaanee la wala ma effacé la carrément bàyyi la est-ce que ma lay wax nii waaw ah, man boo ma yéenee kaso yéenee naa la kaso ñun ñëpp ay sénégalais nañ dinañ dëkk waaye ah, booy lan nañu ëppale booy <laughs> dañu gën a doon nante wala wala gars dañu ëpp fit wala lan la wala boog ñu nekk suñu taan suñu biir taan ñu tee ñu duñ jaay doole naan dañuy toroxal booy ay affaire de showbiz yu dëgg ndeyam yi la mooy ndey showbiz <laughs> booy baal ma sax maa ngi saaga damay siisu booy bu <laughs> ma saaga maa ngi tuub jégalu mais xoolal showbiz booy showbiz yoo xam ne ay caaxaan la ah, ay business yu ñàkk fayda booy nga nag ma si jaay doole naan nag may dugal kaso teew boo seetoon sax ñu ni waaw mais malfaiteur nga escroc nga receleur nga wala boog uh-huh. yooyu man yooyu laay dénoncé te xoola dina dagg par la force uh-huh. par A ou par B dëkk bi képp ku fi def di nga di nga dugg xoola uh-huh. dëkk bi képp ku fi def laa la wax di nga dugg kaso waaw léegi léegi loolee xoola yaa koo def di nga koo dund waaw taxawal taxawal waaw waaw léegi léegi bi ah. nga doon défendre fan yi dañ lay dañ lay dégg si Matar dañ ngay wax te Bercy bi euh, Zenith bi waxoo si dara waxoo si moo lu xew lu waaw. man lu ma war a wax yëpp maa ngay wax. Uh-huh. waaw pour intérêt askanu Sénégal. Uh-huh. est-ce que yaa uh-huh. waaw man saa man du ma forcer te du ma tricher. man du ma naafeq de. voilà xool ma. man du ma naafeq. mais si Diop nga fi doon wax xaw ma sax yaa fiy way te du ma tricher yaa fiy def lu nekk jékki-jékki gisatuñu la nga tudd waaw mais parce que mooy li ma la wax man man saa képp koo munti doon boo ma yëgul yëguma la. boo ma ah. faalewul faalewuma la. Ah. boo ma lijjantiwul lijjantiwuma la. Ah. est-ce que yaa ngi dégg. voilà képp koo munti doon laa lay wax nii. képp koo munti doon laa wax. képp koo munti doon xaalam bi ba mu daj. man soldaaru baaños laa. man aw ma complexe si kanamu benn doomu aadama. mais moom nga doon àndal di ko demande yooyu. waaw parce que xamal lan ci kaw dëgg mooy li ma la man moo ma joxee sama cër ma jox sa cër boo toogee yëgoo yëguma la parce que ay dégg man booy ka yooyu néew ma si de ay topp di dumuruwaate ay woote ay forcé jamais man du ma forcé relation du ko defal benn doomu aadama mhm. naturel est-ce que ay dégg te mhm. aw ma complexe si kanamu benn doomu aadama gis nga nu ma gisee nii ah. soldaaru Bañas ah, gis naa su ma doon am complexe si kanamu Bañas wala sama kanamu Serigne ba sa maamu insta si laa am complexe ah. mais aw ma complexe si kanamu benn doomu mais booy bi nga doon saaga keroog aw ma saar man aw ma saar sama saaru bopp la booy bi nga doon saaga keroog booy bi nga doon saaga keroog yoonam nekk si nga dugal ko si ban booy booy bi toppandoo kii waykat non saaga wu ma ko de loo ko doon wax non non booy man booy man du ma saaga booy loo ko wax gis nga jamono jamono Macky Sall ah Macky Sall wuyu la nit ku bon la nit ku séedaane la moo tax ma doon siisu di wax nii xama uh-huh. di juum yenn saa yi di saaga xama uh-huh. waaw mais loolu yëpp maa ngi siy tuub di jégalu uh-huh. même sànq wax naa xaw a saaga maa tuub di jégalu ah ma du ma saaga mën naa ambiance ruube xumbal yi yëngal xama mais du ma saaga quoi maa ngi tuub di jégalu ah booy woo dama ko doon lancer message rek pour maanaam xama na ko ay mboqam delloo si xama parce que man bugguma maanaam ñuy sacrifier sama doomu réew bugguma loolu uh-huh. ama dama dama xam lu bëri daal uh-huh. kenn du xam lépp wax lépp nax uh-huh. mais junñu doy na borom xel xama ana booy ndar booy bu dëkk ndar bu mën a woy boobu noonu saawaay te ñu sacrifier woon ko ma si yoonu dem tabaski mu dem tabaski yi xama kenn du xam lépp wax lépp daal xama waaw na booy maanaam dama bëgg maanaam jeunesse boo xam ni jeunesse saine boo xam ni bu ah, roy buy roy day roy si lu baax di roy mbaax ay valeur ak dignité man lool la bëgg comprendre na Ousmane mhm. Boy yëpp mhm. muy un toute la jeunesse sénégalaise mhm. ñoom parce que ay jeunes nañ comprendre waaw man say talent bu wala dara bu lu négatif wala dara uh-huh. bu lu négatif état bu bi état bu bi ngi si sa parce que lu ngi ko daj évidemment on est au pouvoir mon frère. Mhm. wala boog. Ah, yaa ngi au pouvoir mais on est au pouvoir quand? xaaral loolu leer na. sawaay mhm. mhm. dañoo xeex de ñun xeexuñu kii de xam man kañ laa tàmbalee internet du fen damal nga 2016 2017 laa commencé xeex man 2018 def naa salle qui dégage maki suis unku bi une m'a contre Sénégal. di xeex pour Macky Sall bañ a am deuxième mandat. mais ñu doon xeex yëpp kii ñu doon xeex ñu doon xeex ñëpp gis nañ ci kii kii kilifa tey am problème te nga li mu sonnee woon ci ci affaire état bi. Cheikh Bara Ndiaye waaw. waaw noonu la parce que jub jubal jubante nañu wax. Uh-huh. loolu laa doon wax sànq kumba am ndey kumba amul ndey moom lañ bëgg ñu mu jugee fi. kon man kon uh-huh. man man su ma defee nit. mu uh-huh. metti ko na dem porter plainte. nee naa la baaluwuma saraxuwuma kenn. gis sa nga porter plainte bu si sax bu si hésité tous billaay walaay wa tala ñun dëggal jubal leeral jub jubal mhm. plainte plainte mhm. parce que la justice hein, tous les citoyens sénégalais sont égaux devant la justice mhm. tous les citoyens sénégalais il y a pas de sénégalais intouchable ici au Sénégal ñu loolu lañ doon xeex samba nga ni dañuy nekk ay malfaiteurs di ñëw di ndax ay intouchable na ñun loolu lañ doon xeex yaa ngi dégg set wecc la def musul def dara musul sàcc alalu askanu Sénégal te tuumaal nañ ko sosal ko dugal kaso kon malfaiteurs yi nag da nga leen war a kaso mooy seen place amul ay nga sàcc alalu askan wi ni ah. nga ñëw delloo ñu bàyyi la de lool non day yomb yooyu yooyu yooyu yëpp nañ doon xeex pour mu jugee fi képp ku munti def ah, ah. me bu sàccee alalu askan wi même bu ñu nangoo alalu askan wi sax laa lay wax moom nañ ko jël yóbbu ko kaso parce que booy si mbedd bi fii bu ñu sàccee ay moto wala yu ñaax faada ah dañuy nangu lu ñu sàcc ba pare yóbbu leen kaso kon justice pour tous les sénégalais loolu la ñuy woote na yoon def liggéeyam. jaajëf Khalifa jaajëf Mbaye ah. jaajëf waaw bëgg yaa <laughs>